3 fii nag boo xoolee 511 voix 511 euh, euh, inscrits ñoo fi nekk euh, nombre de votants yi nekk 331 nga ñëw ci Idrissa Seck mu am fi 215 Macky Sall am fi 71 Ousmane Sonko 15 Madické Niang 24 Issa Sall am na fi 3 mooy bureau 53 bi. dañuy fàttali auditeurs ci bureau bi nga xam ne euh, wala salle de vote bi nekk fii ci Touba Darou Manane euh, bureau 54 la ñu agsi nii ci 515 euh, inscrits votants yi nekk 328 Macky Sall am fi 72 Idriss Seck am fi 205 Ousmane Sonko am fi 21 voix Madické Niang am fi 19 El Hadji Issa Sall am fi 6 moo nekkoon bureau 54 ñu janloo ak 55 fii 512 euh, inscrits moo fi am nombre de votants yi nekk 323 euh, boo xoolee Idriss Seck am na fi 221 voix euh, Macky Sall am 61 61 Ousmane Sonko am fi 16 voix Madické Niang am fi 19 Issa Sall am fi 2 moo nekkoon 55. numéro 55 ñu ñëw ci 56 fii boo xoolee 516 inscrits la votan yi nekk 345 euh, Idriss Seck am na fii 229 euh, voix euh, Macky Sall am fi 80. Ousmane Sonko 13 Madické Niang 15 Issa Sall 4 voix ñu ñëw ci 57 bi euh, ñu ñëw ci 57 bi euh, fii euh, amoon nañu 512 inscrits nombre de votants 335 Macky Sall am 228 Idrissa Seck autant pour moi am 228 Macky Sall am 72 kon Idrissa Seck moo am 228 Macky Sall. 72 euh, euh, Ousmane Sonko am 15 voix Madické Niang 9 Issa Sall am 5 kon bu ñu jugee ci bureau boobu ñu ñëw ci 58 58 fii euh, nombre d'inscrits mi ngi nekk 513 nombre de votants 341 waaye Idriss Seck mi ngi fi am 221 voix ki Sall am fi 70 Ousmane Sonko am fi 12. Madické Niang am fi 27 Issa euh, Sall muy El Hadj Sall am fi 5 voix. 59 euh, euh, bureau 59 511 lañ woon 323 votants pour le candidat Idriss Seck 220 voix la am Macky Sall 60 Ousmane Sonko 14 Madické Niang 20 Issa Sall 2 mooy bureau bu ñu jógee foofu ñu dem ci bureau 60 euh, foofu inscrits yi nekk 513 votants yi nekk cent vingt 328 euh, ki nga xam ne moo di euh, Idriss Seck am na fi 211 voix Macky Sall 66 Ousmane Sonko 14 Madi Kenya am fi 26 Issa Sall 5 voix mooy 60 ñu ñëw ci. bureau numéro 361 waaw euh, foofu boo xoolee euh, moom xam naa résultat yi dafa des tuuti euh, ñi ngi koy préparé pour taf ko waaye ñu jàll ci 62 bi soo xoolee 513 inscrits moo ci amoon 326 votants Idil Seck am na fi 238 waaw ñu ngi tax fee danaa fa dellu léegi 238 kon la Idil Seck am ci 60 bureau 62 bi Macky Sall am ci 66 Sonko am 11 voix Madické Niang 8 voix Issa kon ñu dëpp dem ci 61 bi mi ngi nii ñu doon taf ak ñi nga xam ne ñooy représentant parti politique ak mandataires yi euh, mu nekk. 514 inscrits euh, nombre de votants 318 Idrissa Seck am na fi 207 Macky Sall 68 Ousmane Sonko 18 voix Madické Niang 18 voix Issa Sall am fi 5 voix loolu mooy résultat yi nga xam ne moo nekk 361 soo xoolee ñu ñëw ci numéro 63 euh, foofu nag euh, ki nga xam ne moo di nombre d' yi mi ngi nekk 513 nombre de cent vingt 322 Euh, Idriss Seck am fi 219 Macky Sall 66 Ousmane Sonko 13 Madické Niang 20 Issa Sall une voix muy benn moom la jot am foofu ci li nga xam ne moo nekk bureau boobu ñu ñëw ci bureau 64 fii nag am na 513 inscrits 328 votants euh, Idriss Seck am fi 231 voix euh, Macky Sall am fi 57. Ousmane Sonko am fi ma Madické Niang am fi 18 Issa Sall ñëw ak 2 voix léegi euh, bu ñu jugee ci 64 ñu dem ci 65 euh, foofu 512 euh, inscrits moo fi amoon mais dolli nañ ci yeneen 6 yoo xam ne xam naa mooy ñi nga xam seen biro daf leen réeroon ñu mujj leen andi fii waaye ñii ñi voté 318 la 318 yooyu 203 la ci Idriss Seck am. 73 euh, yi ma dikkee euh, Macky Sall euh, Ousmane Sonko soog a ñëw ak 16 voix Madické ñaa am 18 Issa Sall am 3 ñuy fàttali auditeurs yi ne niil yi ak ci yenn saa yi ñu tëpp ngir rek mën a joxe résultats yi mu gën a gaaw loolu moo tax dañuy wax rek inscrit ak votant rek dem ci résultats yi fii nag moo di bureau 66. 512 inscrits 330 euh, votants ñu ñëw ci Idriss mu am 224 Macky Sall 72 Ousmane Sonko 13 Madické Niang 17 Issa Sall une voix. mu nekk euh, kon 67 euh, la ñuy jàkkaarloo nii 509. inscrit moo fi am 327 votants Idriss Seck am 215 Macky Sall 83 Ousmane Sonko 14 ki nga xam ne moo di euh, Madické Niang am 13 Issa Sall am benn euh, ci bureau boobu di 67 ñu ñëw ci 68 fii nag 511 inscrits la woon 313 votants Idriss Seck am ci 216 Macky Sall 61 voix. euh, Ousmane Sonko 16 Madické 13 Issa Sall 2 boobu mooy 68 bi euh, donc ñu ñëw ci 69 ñoom euh, ñi ngi amoon 508 inscrits 305 euh, votants euh, Idriss Seck am fi 196 Macky 82 Ousmane Sonko 8 voix Madické Niang dix Issa Sall am deux voix kon loolu mooy li nga xam ne euh, mooy bureau 69.